azabatu musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajihuna mbokki jullit mbokki àdduna mbokki senegal li nu fi dajale mooy li xewoon dimanche ba tey jii sunu waajur wu tedd di kenn ci àdduna di kenn ci Sénégal di kenn ci sport bi nga xam ni mooy sport ahlu làmb muy Mouhamadou Sakho Double Less bàyyi koo fi wuy ji yàlla sunu borom subhaanahu wa taala te kenn ku nekk xam na li taxan yàlla wàcce ñu ci àdduna ngir ñu jaamu ko ak liggéey te képp ko matal ku ne dangay dellu delluwaat sunu borom mbokk yi waajur woowu di waajuru ahlu làmb gi yépp doon mboole mu wël réew ahlu làmb jur Balla Gaye 2 Omar Sakho mi nga xam ni àdduna bépp bàyyi nañ ko xel ngir métier mii nga xam ne ci la nekk te séq koog waa ahlu làmb fa tabaarakallaahu waajur yi kilifay diine yi kilifay aada yi di bàyyi koo fu ne fa tabaarakallaahu ngir ñu sol seenu dàll ñëw di ko jaale si mbokk yi kitaab bi tey jii ci biir gitaay bi di frère di xaritam di soppeb àdduna di soppeb Sénégal waaye di soppe bala Gaye 2 ñu bokk ndey bokk baay moo ànd ak waajuram sunu waajur di papa ci ñenn ñi di ndijaay ci ñenn ñi alxaaji Biram ñi mu baax mi ak mboolem ñi nga xam ne ànd naak ñoom muy estafam bi yëpp fa tabarakallahu soppe ak xarit yi mu ñu leen sol leen seen dàll ñu taal oto yi dama tukki woon waaye fa ma nekkan sama xel yëpp mu ngi wan Sénégal ndax sama baay moo fi bàyyi ko ku ma daan conseillé moo fi bàyyi ko ku ma jàppan comme ni mu jàppe woon doomam moo fi bàyyi ko ma seq doomam nag fa tabarakallahu ñu war sol sunu daal dem jaale ji ko mbokk yi àddunaa ngi nii te alquran la sunu borom wax ni wa maa xalaqtul jinni wal insi ila li wa ma umiru ila li yabudullaha muxlisina kon jaamu yàlla gu nekk dañ koy sellal waaye liggéey bu nekk dana koy sellal kooku nag moo tàbbi tey ci biir kër gi fekk si fa tabaarakallaahu ki nga xam ni mooy géejaway ki nga xam ni àdduna bépp bàyyi nañ ko xel ki nga xam ni léegi la président fa tabaarakallaahu bàyyi koo ci moom ki nga xam ni mboolem kuy kilifay diine ëttu maamam Cheikh Ahmad Bamba borom Tuubaa bi mu yaakaar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 di la tax a rawit ki sa boroom kon kala yarul moo la sonal kon sant yàlla bi suñu borom fa tabarakallahu maye Mouhamadou Sakho ba mën a meññ doom ju mel ni bala Gaye 2 mu yar ko yiir ko sutural ko taxawu ko bam mën a am adduna mu ànd baayam di ko teral ci wërsëgam jox koy oto dugal ko ci kër yóbbu ko Makka yor baayam yiir baayam ba baayam xëy wàcc te xam ngeen ne àdduna ku fi nekk di liggéey feeg wàcc goo mën goo dem añi kon bàyyam daa añi yàlla na dajee ngërëmal sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam mbokk yi mu daje feeg soppeem xaritam promoteur bu mag bi di Fallou Ndiaye ànd ak alhaaji Njambe ak soxna pël ak mbokk yépp fa tabarakallahu ñëw jaale si Balla waaye tey daal nañu xam ni àdduna senegal amat nañu mbégte ngir ñaar ñii toog ñoo bokk lépp ndax kii fa tabarakallahu boo nee gayndeel saraxu jokkumba daaroo saraxu kumba xel yëpp dem atu maamam te maamam nag moo fekke woon Cheikh Ahmad Bamba nekkan ca daaray kaamil muy maam Mor Lo di Balla doyloo Serigne Basiiru Baara moom Cheikh Ahmad Lamine Baara moom Cheikh Ahmad Bamba xaadim borom jaam yi nda ndeyam Maodo mi borom Tiawan la boole ëpp na maam Maaram Mbàkke ndax xam nga ni daam isoloo ca ndaam moo jur omarum ndaam jur moxtaarum ndaam omarum ndaam moo jur sëriñ lu ko biraan awa mu jur mataar naa la yële yuusu mu jur Mamadou Mbaye Tooj mu jur tafsir Matar Bintaloo ca ñoom rek mu jur soxna ta loo ñu dénk ko sëñ Bamba moom ca Moustapha Aminata Lo ak Baara ta loo bàyyi sëriñ Siriel Moxtaar mbakke bàyyi sëriñ Basiiru Baara mi mu doyloo moxtaaru mbaam jur maam Demba Bintaloo njox maam Seneba Gay mu dëkkoo ko am ca mbërgu loo sana ba gay njaay loo sana ba gay njugaloo sana ba gay aale loo sana ba gay ak bintaloo sana ba gay mbërgu loo sana ba gay maamam jur bàll mbërgu mu jur damburi sàmbaloo mu jur saliloo mu jur anta sali mu jur mamoor mu jur sëriñ tuubaa njaay loo sana ba gay nag dem caameenu bakkar yi ñu jox ko maam kumba caam mu dëkkoo ko am ci aram loo kumba caam ñu jël aram loo kumba caam jox ko sandeena wele mu dëkkoo ko am ci daramaan wele kooku mooy Balla gay 2 mi nga xam ni moom la Modou Lo champion bu mag bi ñëw jaales tey kon àdduna Sénégal ñaar ñu bokk ndey bokk baay fekk fi nag ay wëllëreem ay xaritam ay magam baabooy fekk fi liiru jaan ak staf bi yëpp ñoom lamit Golo fa tabaarakallaahu ak mbokk yi kon ñu jël kàddu gi rek déglu suñu gan yu tedd yi nga xam ni ñëwal la nañu Balla jaales nañu la te mu muudu bu ko neexan baas ca buntu këram Balla fekk ko fa ànd ak staf bi nga toj say ndawal togg say cin def say sarax Balla ñëw ni la champion loo xew de nga ne ko sama baay Mouhamadou Sakho moo fi bàyyi ko kon dama koy saraxal bala ne la sigil ndigaale ngeen ko sigg sa wàll kon mbokk yi Modou kàddu gaa ngi nii ñu jox ko sa papa sa xarit sa soppe sa sëriñ sa lépp. waaw asalaamaaleykum euh, euh, euh, ngi lay jaale sa papa. Hmm. saa wax na ko léegi. du dafa voyagé woon euh, mais ñëpp ñëw nañu al xale yi ñoom ñëpp ñëw nañu yëg yëg bi mu ko yëgee woon na ñëpp ñu dem jaale euh, ji euh, ñu lay masawu nag ndax Double Less yaakaar naa kenn du ko jaale sa bopp ku nekk sa boppam koy jaale ndax nekk na koo xam ne kii si làmb yaakaar naa icône la ci woon Euh, jàpp naa ne yow sax dabuloo ko ci làmb bien que toujours rek dañuy wax ne euh, xale toujours day wax papaam nan ko li ma man yow mënuloo ko mais Double Less ñun ñi fekkee jamonoom xam nañ ne vraiment nekk na koo xam ne ki exemple la ci làmb euh, Modou nag mu ngi koy naxarlu bu baax a baax a baax ndax man moom moo ko njëkk yëg mu ngi woon Kigali si basket bi mais moom ci boppam moom mu jëkk yëg dama ko woo mu ne ma mais yëg nga ne euh, kii Papa Balla dafa gaañ ma ne ko effectivement moom laa doon woowee mun a ma yëg naa ko bu yàgg donc cela veut dire que mu ngi doon bàyyi xel li nga xam ne lii moo nekk ci Sénégal donc ñu la koy jaale nag di ko jaale famille làmb yëpp di ko jaale ministre des sports di koy jaale président de la république ndax euh, ku xam euh, comment dirais Double Less xam li mu représenté ci dëkk bi nekk na koo xam ne ki yaakaar naa ne ñun ñëpp ñoo ko ñàkk wax nga ko léegi moodu waroon na mën a tànt ci këram pour dëj ko effectivement adduna nag nii la euh, kii bi papaam gaañoo def na délégation ñëw seet si moodu Modou ba mu déggee affaire bi la ne ma bu may ñëw biig la ñëw amul temps wu reposé sax ne nañ dem bu ñu paree ñu dem seeti bal champion jéem a xam fan la nekk ndax mu ngi maris wala mu ngi fii heureusement mu woote ñu ne ñëw na le matin mu ngi woon fële mais actuellement ñëw na mu ngi fii si golf donc ñu la koy jaale nag di bokk naqar bi ak yow di la xamal ne eh, vraiment fa mu la féete woon eh, yàlla na fa yàlla féete eh, di ko ñaanal nag yàlla xare ko àjjana taas ñu si barkeem ndax duubal moom ku ko xam rek xam ne man day xam naa ko bu baax a baax ndax euh, sama papa moo ko daan tëggal làmb Alaaji Mboor Ñing moo daan tëggal duubalees làmb duubalees Mbay Gay Robert ñoom euh, Yaaku Saar ñoom ñooñ seen jamono sama papa moo yoroon làmb ji moo doon tëgg làmb yi moo doon organiser làmb mu doon koo xam ne man sax dama doon am problème ak samay rakk ndax samay moom la ñu àndaloon duubalees lay àndaloon man ma faral mbay Gueye mu doonoon rivalité boo xam ne bii suñu ko kenn mënu la ko wax donc tey yàlla def na moom ñëw na sama kër ancien gloire yi ba ñuy ñëw duubal la ñëw na sama kër ma koy fàttali donc mu doon koo xam ne kii icône la woon ci làmb donc ñu ngi leen koy jaale bu baax a baax parce que làmb yëpp tey am nañu naxar tey nag di bésu discours ndax dañuy ñëw pour jaalise ñëw pour ñaanal ki nga xam ne kii moo fi jógee euh, donc am na yoo xam ne yi mën nañ ci bañ yegg mën nañ ci bañ a sori eh, di ñaanal eh, Double si yal na ko yàlla xar àjjana eh, yal na rëcc lu mu doon def si àdduna yal na alaxira nekk noflaayam donc Balla ñu ngi la koy jaale bu baax a baax di la remercier si accueil bi salaamaaleykum wa rahmatullah kon xam naa dañuy jox sëñ Fallou Ndiaye rek kàddu gi ngir sàkk na ko mu joxe am njaalam njàmbe mm, sunu noppee rek eh, fa tabarakallah bu noppee ci yànde jox sëñ xaadim gajaga mu ubbil muudu sunu noppee bàll joxe ay kàddu yu njaalam moom it ndax mën na koo jaale muudu kon yànde mi nga xam ne ñëpp xam nañu digganteem ak fàllu xam digganteem ak bàll ak réew mi ak ñi toog ñëpp kon ñu jox ko kàddu gi rek ci ndigalu sëriñ fàllu njaay promoteur waaw salaamaaleykum wa mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen nuyu di leen sant di yeesal suñu njaal si bàll Fallou Ndiaye ànd ak ñun ak delegation bu foor ànd ak pël ànd ak jams ànd ak man mii bàll Fallou mu ngi lay jaale sa waay sa xarit sa soppe ñaan suñu papa dubale si yàlla na ko yàlla xare àjjana lu tonton wax léegi tey du bisu kii bisu njaal rek di ñaan yàlla yal na ko yàlla xare àjjana si barke Seydouna Mohamed ak ñu fa fekk ñëpp lu am solo ba am solo mooy ñaar ñuy toog tamit dañu wane un exemple na xale yëpp xool su moom lu am solo ba am solo Balla baayam yar na ko kenn dootu ko wax ndax lii moo ko waral kenn ku nekk da ngay ñaan yàlla boo génnee àdduna nga am njaboot bu la taxaw olof nag dani donn sa baay doon sa baay ko gën kon laf cat yàlla bu la cat dugg fàllu nag mu ngi lay sant di la gërëm di ñaan yàlla sarax bi yàgg sa loxo te yàlla na fi gëj si barke Seydouna Mohamed jërë ngeen jëf fàllu yowit ñu ngi lay delloowaat njaal di la ko massawu yow it sa taxawaay ci axlu làmb ak sa digganteeg ball ci lu baax rek ngay dox di wax lu baax aousubillahi mina sheytan irajim bismillahi rahmani rahim ñu ngi nuyu ñu fi fekk ñëpp ci sa tur ak sa sant mooy di ci jiit Balla mi ñu seet si tey bokk ak moom tiis bi fi am di wax Double Less mooy papam bi ko jur waaye suñu papa la ñun ñëpp ma ne ko fierté sénégalais la woon parce que yàgg na génn représenté Sénégal ci biti kon tey Sénégal yëpp a ñàkk ñoom ñàkk nañ ñu ngi leen di jaale lu ñu bokk di ko ñaan yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana te wooye fal suuf ci kawam yàlla jël ko ay bàkkaaram njaboot gi mu fi bàyyi yàlla teg ci loxo fi mu leen féete woon bur yàlla féete leen fa leen wax ñoo ngi masawu encore bu baax a baax parce kenn ku nekk xam na fu waajur toll ci doom ma ne ko boo ko manqué rek yëg ko waaye mbirum yàlla nag moom noonu la fii kenn saxu fii xam nga kenn saxu fii ñun ñëpp lañuy dem ba tax na ñu nit buñ ci toolee yàlla nañu yàlla yërëm parce que ñëppay dem alaa kulli haal xam nga di ko ñaar bu baax a baax di bokk ak coono bi comme ni ko waxee rek dama génnoon nekkuma fi waaye ba affaire bi amee yëg nañ ko ba jour boobu sax accepté naa def interview ndax loolu xam nga puisque jaale ko que Sénégal yëpp ñàkk vraiment vraiment ñu ngi leen di masaw bu baax a baax baax a baax daal xam nga leen wax yàlla leen yàlla yokk taxawu te ñu yéex ko fayante vraiment comme li nga wax rek suñu adversité lépp ci tàkkusaan benn tàkkusaan la yem mais kenn ku ci ginnaaw yàlla sa intérêt sa si sa morom la nekk parce que tey bu ñu bëreewul du ñu fayeku du ñu am lu ñu yóbbu kër ga ba tax na ay adversité lañ pour benn takkusaan ay bu loolu weesoo ñun ñëpp ñoo bokk ndey boo ko bàyyi wallahi alazim lu ma yéene sama bopp laa yéene Balla laa yéene kenn ak kenn ak kenn ak kenn ak kenn xam parce que ku nekk xam na làmb lu ci nekk coono moo ci nekk te ñun ñëpp nattu mooñ ci duba rek wallahi keneen ku doon tànnal sa bopp métier defe naa di nga tànn leneen dama gëm ne làmb ñun nattu bu ñu yàlla nattoo la boo tax na xam dañ koy nangu rek te te jéem a rafetal tamit di jéem a rafetal vraiment ñoo di jaale di jaale sa Thiès say rakk say mag yëpp say waajur ñoo ngi leen di jaale bu baax a baax a baax lu ñu bokk comme li nga wax xam nga maa waxoon ñoom père xaar leen bu ma ñëwee ñu mënta ñu mënta ñàkk nañ dem mais yéen xaar leen bu ma ñëw ñu ànd bokk dem bokk bokk tiis bi daal di leen masawu encore bu baax a baax a baax a baax di leen jégalu kàddu yu jar yu bari dañ fi ñëw rek pour masawu bokk ak yéen coono bi bokk ak njaal mi daal jërëjëf.